ginnaaw bi ñu leen nuyoo amaat am comme actualité bien li nga xamante ni moom mooy combat bi jour combat bi ba tey nga xamante ni après combat bi la wax tey ñu ñëw seet si nga xamante ni moom mooy champion bi donte gis ngeen li nga xamante ni ndam ji la demee mais il n'a pas démérité ak lépp lu ci mënti après gis nañ ñi nga xamante ni la mu dañ koy féliciter encore une fois di ko encourager di ko wax ni c'est Sénégal ñu ñoo bokk lépp fii ak fee yëpp yee julli mu seel mi di sant si ñaari mm-hmm. waa fay nañ la mm-hmm. yaa ci jàmm maa baax kay tey nan nga gisee lii nga xamante ni gis nga ko yu wër la waaw naas booy làmb lañuy dund ko waa bilaay yee tey doon ñëwaatal ci li nga xamante ni moom mooy affiche yi pas sa combat rek yëpp li nga xamante ni ko jàngatee balaa ñoo dugg ci yow. mais lépp làmb la woon rek. waa kafoore bu jeexee jeex na. mënul weesu lu dul làmb ko waa waa gis nga kenn du la wax. dem na nga jàngatee làmb yi. waa neex rek neex ambiance làmb dekki waa ngéwal yëngu ñu ràcc maasaale kenn du la wax. <laughs> te boo ñu doon ñëwaatal sa combat nga ñuy wax ci démb. waaw non làmb la woon rek. Mhm. bilaay lu leen war lépp def nañ ko. barki yàlla. Mhm. dara non làmb la woon rek waa waaw te bu dee yàlla moom mooy dogal rek moom waa dara war la mën a métti. yee bilaay. ndax ndax yàgg nga am ay bés yoo xamante ni daan nga daan ah, daan nga sa sa ci li nga xamante ni moom mooy. bis moom mënul wees lu dul bis bis yëpp bis la. Mhm. waaw te làmb yëpp làmb la. Mhm. yee. mais toogoo ba benn instant mu xaw la laal ak li nga xamante ni préparation yi def ko ko lépp. non non barki allah gi fàllu laalu ma sonalu ma. ndax xamoon naa ne làmb la rek. waaw te xaay na foofu noonu. mais yow pour yow tey boo toogoon di analyser yow personnellement di nga ne lii moo la daan wala boog faay bii nga def lan ngay wax ci loolu. ku daan. non non exemple quoi. Ah. xam naa ne yaa daan. waaw ah. mais man exemple yow bu fekkoon tey da ngay ñëwaat ci làmb ji. ni sawaay mi lii moo ko daan wala yow man tey lii laa waroon gën a mën a yokk lan nga ñuy wax. waaw non ñun daal def waaw tamit ñun lu ñëw rek dañuy waaw nangoo muñ doyloo yàlla. sa adversaire lan la def loo xamante ne waru ko woon def. bilaahi ah. sa adversaire lan la ah. def loo xamante ne waru ko woon def. ci biir combat bi. Ah. lu mu def loo xamante ne waru ko woon def. non man moom nag moom lu mu def moom intéressé wu ma ko waa bilaahi waaw. tey la nga koy wax. waaw di ko waaw di kontaan si moom rek. di ko wax ne moom jàmbaar la quoi. Mhm. waaw ndax bañkat la. yow boo soxorul rek xam nga ne Pokola jàmbaar waaw ñaari jàmbaar dege woon rek. diggante Pikine ak jàmm gën ñu bëri yaakaaroon ni dina dina demee loo xamante ni du ko demee comme nii mooy lan gars yi bëri nañu si jàmm amoon na ambiance mais ñu bëri yaakaaroon nañ ni jàmm ji nga xamante ni dina ko fu mujjee lan ngay wax ci loolu en tant que. koo xam ne mais comme ni maanaam gars yi affaire yi du dër bi lamb la woon rek. waaw ñoom ñaari mbëri ku si nekk xoola mardi nga jël sa xaalis waaw nekk sa bopp comprendre nga ye moo tax jarul xuloo jarul xeex mënul wees lu dul làmb waaw ndax dërëm bi génnul gaal gi quoi lépp fii lay xewee yee mais instant fan nga gis sa bët yow mais làmb ngi si kanamam barki yàlla làmb ngi si kanamam Ada Fass na ci moom de ëpp na ci moom non ëpp na ci moom. non Liss ngi si kanamam. tuddul hmm. tudd tuddu ma fi kenn. làmb la daal moom waa mbër la tamit. mom hmm. moo xam ñu bëgg a bëre. ngi waaj. baaxul pare moo gën loo gis. bu doon léegi ñu jël code naaw carré rond x kay. jaxase el yi. Ah, waaw ñu see pilifeur kay. mais diggante ko Sa Thiès ak ki nga xamante ni moom moo nekkoon Eumeu Sène nan ko jàngatee balaa ñoo dugg ci les détails. waaw naaj non daa juum rek daan. bilaay dañ kaa téye ba mu ëpp. buñ ko téyewuloon Sa Thiès warul yàgg ak. kon maanaam li nga xamante ni mu bëree daal waru ko woon bëree. waaw waruloon bëree noonu. parce que ñu bëri moom lañ joxoon favori ndax moo a nekk xale. waaw hmm. mais làmb woon rek. bilaay yàllaa ka xañ waaw may ëmb nag waaw nag nekkaat si entraînement am rek <laughs> yee gars yi nañ moom nga faraloon duma ko nëbb <laughs> saa laa faraloon saa kees de mais ñun la faraloon di ah yéen la faraloon waaw yow ragal féete day xañee wërsëg ok waaw moom xanaa nekkul pokolaa la faraloon voilà waaw mais xam nga man dama man man personnellement dama koo déggul moom mu wax ci loolu quoi. kan ama kii Sa mais dama dégg yow nga ni moom nga faral. mais saa man du ma nëbb dëgg waaye man moo loolu. Hmm. fu dëgg yàlla Sa Thiès faral. boo ñaak rëg maa ngi rëg-rëg faral te ñëwagul. <laughs> mais làmb la rek. Ah. waaw bilaay boo ñaa bu daanoo moog lis nañuy bëre. ndax moom day tegle deux défaites yow yaakaar nga ni sa waay bi mu daanoo dina ñëwaat fii pour daanu. ay yow lu tax du. ah mais dafa jóge dafa jóge ci benn defet boo xamante moom da koo laal. waaw mais rëg-rëg di doomu jàmm gën. Ah. waaw yow rëg-rëg di champion rëg-rëg. te gis xam naa ko baax sama sama MMA moo ma doon entraîné. xamante nañ bu baax. parce que Pikine dañoo jóg benn jóg. keroog gis nga open press Pokola be Eumeu seen ñoom ñëpp dañoo def benn say. waa léegi nag yàlla na leen yàlla jàppale si say boobu noonu. seetaane bañ kaa tas. waaw ah, ndax ñoom dañoo war a doon benn quoi. Hmm. parce que bu ko bu ko seytaan tasul comme noonu nga waxee pour nga pour nga pour nga yegg volontaire du yomb de ndax ñoom nee nañu. Hmm. li nga xamante ni moo fa daan dugg. ay détails yu sew la woon séparoo am kii jaar kii jaar ni léegi nag yooyu yëpp lañ jël sànni ca poubelle ba. voilà loolu mooy yoon yal na yàlla taxaw de telle sorte que buñ taxawee képp ku taxaw amul fii amul géej waaye ah, amul fenn comme ñoom ndax jàmm gën réyul boo xoolee ñu dul mbër ñi sax laa lay wax ni xam nga la yee ñooy gën a sonn mbër yi seen bilaay ñoom supporters yi ñoo njëkk a doon cent pour cent avant mbëri comme kenn du la wax. Eh, boo ñaa moom na yem si pikinam bële. mi bàyyi ay jàmm gan am naa fa am non non jàmm gan rukk la daa ndaw. Ah, xaju fi keroog ci biir wax na parce que nee na moom jàmm gan la juddoo. juddoowu fi de. juddoowu fi de. mais am na fi mbokk. Cees la juddoo. waaw mais am moo fi juddoo. maamam fii la gaañoo seen kër a ngi. kon xam nga ni nag. kenn ëppale fi kenn ëppale wu ko ko. fi dañu wax moom moo loolu. waaw moom Aliya bële la dëkk si yoonu Dominique bi waaw. waaw kon daal yéen ngi waaj pour combat boobu. ay yow ngi pare nga naan lan. bilaay mooy loolu de pare nañ de waaw. billaay ah, Liss depuis sàng yaa ngi ñuy wax ni que da am fooy dem. garaaw duñ la duñ la duñ la duñ la tardel duñ jël sa temps ndax. dëgg la sàng sa si yoon lañ la fekk. dañ lay remercier rek ci disponibilité bi nga xamante ni may nga ak opportunité bi. kon dañ lay jaajëfal di la bàyyi nga tàggoo déggee waat sa gars nga xam ne ñoom ñoo la war. ndax yow moom lii yàlla dala ko natoo sa gars yi. yow moo loolu yow di kontaan si yow rek. yow borom yoon nga borom baax nga. Eh, lii yombul ko waa yow mi kese gaa sa job bi job yàlla baax na yàlla na la yàlla taxawu rek comprendre nga. yaa xam li nga bëgg sa job bi ni yàlla defaral loxo. waaw. bilaay ay